wax ni ça ce sera un grand moment de communion et de communication entre Yewwi Askan Wi et les populations pour wane ni Yewwi est la principale force politique de ce pays parce que ñëpp xam nañ ni au sortir des élections législatives l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale ñëpp xam nañ ni aussi depuis bi ñu dooreeg léegi bu naxataal bi jaay doole bi dafa gën a yokk puisque nag ñu jëm la dëgmal élection présidentielle daje bi jëkku yeewi nag depuis mooy le 14 mars à Dakar camarades yi daañ ci dellusi ñuy woo opposition bi yëpp ñu ñëw ñu woo société civile yëpp ñëw ñu woo citoyen yëpp ñu ñëw parce que li muy wunde daje boobu mooy Sénégal mooy jóg pour dem élection présidentielle boo xam ne du am problème du am njiixi jaaxa te duñu nangu ñu tànnal ñu suñuy candidat te duñu nangu ñu éliminer candidat te duñu nangu élection yi bañ jaar yoon message boobu nga xam ni moom la ñu war a jox àdduna bi jox ko Afrique jox ko Europe pour que ñëpp xam ni Sénégal dooraat na xeexu 2011 pour ñi ko bëggoon fàtte parce que 2011 xam ngeen li xewoon xeexu 2011 boobu ñu dooraat nag te ñu koy sumba ñoo ngi ci woo ñëpp góor jigéen mag ak ndaw wóor nañu ni ñëpp tous les partis de la coalition seeni nit seeni militants seeni am di jàmm ñu ngi leen di woon nañu génn massivement pour que ce soit un giga meeting boo xam ne day wan askan wi wan nguur gi ni ko la woo noonu wonni na et que nous exigeons un scrutin dans la paix le 14 doon daje boo xam ne dajeeg jàmm la dajeeg waxtaan la mais daje wane suñu bopp la loolu laa amoon lu may wax ci turu leader yi maa ngi leen di gërëm di leen sant la